Et nous étions en 1989, euh, l'album The de Youssou N'Dour, album exceptionnel qui le conduira quelques années plus tard en 1994 donc à ce fameux euh, donc Youssou N'Dour et le Super Étoile, euh, le groupe du Sénégal. Très belle musique. My Daughter, on s'en souvient il y a une semaine cela, le 1er octobre dernier, son anniversaire, 60e du genre. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de votre fidélité. C'est avec plaisir euh, que nous avons reçu chez vous, un peu partout au Sénégal, à travers le monde et également euh, dans tous les pays de la diaspora, les Sénégalais, où est-ce qu'ils puissent se retrouver et se trouver. Nous leur disons bonjour et excellente semaine sur cette antenne de la DSTV. TV. Il est midi, le, votre magazine d'urne, les grandes heures. Euh, nous recevons ce midi l'économiste spécialiste en microfinance, secrétaire général de l'ANPEJ, ancien DG de l'ANAMAN, M. Saliou euh, Keita, euh, coordinateur de la l'APR dans la zone du plateau ici à Dakar. Avec lui, nous aurons une heure pour parler de pas mal de questions. Vous allez bien, M. Keita Oui, je vais malheureusement. Ah, Sérieusement. Pas le me dire que vous parlez bambara, ça, plaisir depuis le début. Et qu'a kenné Alhamdoulilah, nga kenné parlez bambara. très, très bien, sérieusement. Astou Dione, la Sérère qui pas Sérère, ça pas... Euh, c'est pas grave. c'est Sérère. C'était comme quelque chose que j'ai caché vraiment bien. Je le Sérère, alors. Hein Je vais l'apprendre à D'accord. C'est des cours gratuits. Hein. En tout cas, je, je fais mes cours euh, en silence, quoi. Parce qu'il y a plusieurs types de serrères, hein. non... Euh... Safen. <coughs> Safen, bon, il y en a trop. Parce que à Tuawan, en doute, quand même, j'ai je, je, rencontré beaucoup de serrères. À Moro, même chose. Euh, ça va, la santé Vous portez à Ça merveille. va, oui, je vais super bien, je me sens bien. Et puis voilà, euh, j'avais vraiment envie de reprendre et revoir ça, les téléspectateurs. Quand, quand ça va très bien, on sent qu'il euh, y a la pêche. Euh, Je vais bien Avec en tout cas. Avec des couleurs, mmh. franchement, ça va. Oui, ça va. Alors, l'actualité du jour, rapidement. L'actualité du jour que nous allons démarrer avec la privation de droits civiques aux fonctionnaires radiés, la synergie républicaine est plus que jamais déterminée dans sa politique de conservation des valeurs. Elle va, elle va saisir euh, le Parlement pour une loi allant dans ce sens, une loi que nous allons vous faire connaître avec euh, Pour redonner au travail parlementaire son lustre d'antan, Les députés de la 13e législature envisagent de réformer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ces réformes sont susceptibles de mettre un terme au vote des lois sans débat. Jusqu'ici, vous le savez, la loi de finances doit être examinée dans un délai de 60 jours par l'Assemblée. Et jusqu'ici, les mécanismes qu'on utilisait ne nous permettaient pas de, de, de, de bénéficier pleinement des jours de manière efficace. Il est souvent arrivé ici en séance plénière parce que nous avions des contraintes de délai, mais aussi nous avions des contraintes d'arrêt des travaux à minuit, que certains budgets de ministère se, fassent, se passent à l'Assemblée sans débat. Toujours dans les réformes qu'on peut qualifier d'urgentes, il y a la nouvelle prérogative conférée à l'Assemblée nationale par le référendum de 2016 qu'il faille inclure dans le règlement intérieur. Le référendum de 2016 a conféré à l'Assemblée nationale une relative à l'évaluation des politiques publiques. L'Assemblée devait donc, dans son règlement intérieur, mettre en place un dispositif pour pouvoir assumer cette nouvelle attribution constitutionnelle. Mais les députés ne comptent point s'en tenir là. Une idée de refondre de fond en comble le règlement intérieur est en gestation. Et le groupe de travail va continuer sa mission pour de cet élément n'est pas disponible, mais nous parlons également de Serigne Mansour Sy qui appelle un climat social et politique beaucoup plus apaisé. Le leader du parti, le leader politique, voilà, salue le courage et le sens de dépassement de Khalifa Sall qui, d'après lui, a été incarcéré injustement. Il invite également le gouvernement à se concentrer sur le processus électoral et la gestion des ressources. Il s'exprimait lors d'un exceptionnel sur la fécondité de la pensée par Thérèse ni ma waxoon naa xalif général des Mourides que su inauguration bi ñëwee na woote jàmm. L'inauguration de la grande mosquée de Massalikul Djinan a été une bénédiction pour le Sénégal. Maître Wade et le président de la République se sont réconciliés au lendemain de l'inauguration. Mais je voudrais ici saluer le courage, la persévérance le sens du dépassement, le sens de transcendance de Khalifa Sall qui a été emprisonné injustement. Mais malgré tout cela, il a résisté. Vous avez tous vu le jour de sa libération. Il a été accueilli par des acclamations et des éloges. Actuellement, beaucoup de choses se passent dans ce pays et on ignore les vrais acteurs. Dernièrement, on s'en est pris aux chefs religieux, tels que Serigne Touba et El Pour finir, l'appel au dialogue national doit être un appel à une alliance nationale et les priorités doivent être le processus électoral et la gestion des ressources. priorités qui surplombent, qui surdéterminent l'ensemble des autres priorités, le processus électoral. Parlons à présent des responsables et membres du collectif des populations de Ngalel Nord et Extension et de Sainte-Anne-Bango. C'est à Saint-Louis. Ils ont organisé, elles ont organisé ce matin, euh, hier, plutôt une marche euh, pacifique pour manifester bruyamment leur colère et attirer l'attention des pouvoirs publics, euh, plus l'État avec Moussa Diagne. Les populations des quartiers de Ngalel Nord Extension et celles de Bango ont battu le macadam pour manifester bruyamment leur colère lorsqu'elles ont reçu des sommations de déguerpissement. Ces habitants de cette partie de la commune de Saint-Louis occupent cette assiette foncière depuis plusieurs années et aujourd'hui sont contraints de tout laisser derrière eux et de quitter les lieux. Ils ont pris la ferme décision de ne pas obtempérer. Et ça, et ça, Nous le répétons, l'administration ne peut pas se prévoir de sa propre turpitude, parce que toutes ces constructions ont été faites en plein jour. Et tout le monde sait le, processus pour construire. Il y a les cadastres, il y a l'urbanisme. Si l'administration laisse les gens de braves pères de famille engloutir toutes leurs économies en construisant, se réveiller un beau matin pour lui dire que maintenant, vous n'avez pas droit, je veux dire que ça, c'est l'administration qui est Maintenant, et nous, avons, la responsabilité de c'est normal si euh, l'autorité centrale veut construire des écoles, des centres de santé, c'est tant mieux, c'est pour leur, c'est pour les populations. Donc les populations ne sont pas opposées à cela. Alors, il paraît qu'un recensement a été fait. L'autorité maîtrise très bien la zone et les occupants qui sont là depuis des années. Maintenant, la solution de sagesse voudrait que qu'on stabilise définitivement ce problème. Dans le même ordre d'idées, les populations de Ngalel Nord Extension et de Bango ont aussi laissé entendre que les ADS ne sont pas propriétaires de cette zone foncière. Cela maintenant, euh, même que le, pourquoi pas le cadastre national ne serait pas mis en ligne, qu'il soit consultable. Demain, si vous voulez acheter un terrain compte, vous savez que là, ça appartient à quelqu'un, ça évitera tous ces Parce que vraiment, il y a des gens, il a des vieilles personnes, il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre avec ce stress permanent. On va détruire ma maison demain, on va pas détruire ma maison. Donc il faudrait que vraiment, nous avons besoin d'une paix sociale dans ce pays. Et ça, il faudrait que l'administration se convainque une fois pour toutes qu'elle est au service des populations. Face à cette situation pénible et désagréable, ces pères de famille invitent le chef de l'État à intercéder en leur faveur pour qu'ils puissent occuper cette zone foncière que l'ASECNA veut récupérer illégalement. Et voilà, nous terminons avec euh, couverture médicale du Magal de Touba 2019. 5000 agents de santé seront mobilisés. Le ministre Abdoulaye Doussar, euh, qui a effectué une visite de terrain euh, dans la cité religieuse, a indiqué que quelques 188 postes de santé seront installés à Touba. Également, sans compter plus de 45 ambulances, dont 6 médicalisées. Un hélicoptère également va prendre besoins. Une enveloppe de 62 millions de francs CFA est disponible pour les de Pape Sayer Mbaye. le ministère de la Santé ne compte pas lésiner sur ses moyens. Selon le dans la ville-centre de Touba, un important dispositif sera en place. Plus de 5000 personnels de santé seront pour prendre en charge la santé des aussi euh, quelques 188 euh, postes et postes avancés seront installés ici à Touba, sans compter un nombre important, plus de 45 euh, ambulances, euh, dont euh, euh, quelques 5 ou 6 médicalisées. On aura dispositif avec un hélicoptère qui va prendre en charge les en cas de besoin, sans le stock de médicaments nécessaire. Euh, on aura euh, un budget de 62 millions en médicaments. Somme toute, vous pourrez effectivement noter que euh, le ministère de et tout à fait prêt, conformément aux orientations du chef de l'État, à prendre en charge Au cours de sa tournée ici à Touba, le ministre en charge de la Santé a visité quelques sentiers la cité religieuse. Il faut dire qu'au niveau de l'hôpital Madlaboul Fawzaini, le bâtiment R plus 5 que, euh, que nous sommes en train de réaliser à ce niveau-là est en très bonne voie. Le planning est respecté et euh, en fin 2020, normalement, nous allons recevoir les clés. De la même manière, l'hôpital de niveau 3 de Touba aussi est en très bonne voie. Nous avons visité les travaux. Le planning aussi sera respecté à la même période, fin 2020. Cet hôpital aussi sera livré. au bonheur des populations de manière générale parce que c'est un hôpital qui va polariser toute la région et au-delà de la région parce qu'il y aura l'ensemble des spécialités. Au nom du Khalif général des Mourides, le ministre de la Santé et son équipe ont reçu les remerciements et les félicitations de Serigne Bassirou Ibn Seri Abdou le porte-parole du Khalif général des Mourides. Et voilà, retenez juste euh, qu'il y le crash de l'hélicoptère à Boire. Le capitaine Cham, qui pilotait l'engin, a finalement succombé hier à ses blessures. De ce fait, euh, le bilan passe ainsi de trois à 4 morts. Voilà Ben pour l'essentiel de ce bulletin d'information du midi. Merci à vous, Astoudion. Euh, s'agissant de ces crashs d'avions, d'hélicoptères, nous y reviendrons <coughs> avec un focus dans le courant de cette semaine puisque c'est un cas très très grave l'armée sénégalaise ne dispose pas de spécialistes donc euh, la matière il faut quand même le dire il faut oser le dire et l'accepter euh, nous reviendrons sur cela et le chef d'état-major de l'armée de l'air euh, le euh, Joseph Maodo Diop sait de quoi nous parlons alors euh, tey mesdames et messieurs euh, suñu débat ak suñu gan mooy euh, Saliou Keita secrétaire général euh, ANPEJ alors euh, ñu fas yéene waxtaan ak moom si ay questions yu bëri xam naa ne marchand ambulant yi xam nañu bu baax kan mooy Saliou Keita parce que moo fi doon jiite ANAMA commencé woon fi def benn liggéey bu am solo ak moom ñu koy dissoudre agence boobu tey Saliou ginnaaw bi ñu la nuyoo ANPEJ. de président Macky Sall dafa dissoudre ay agence yu fi nekkoon mu mel na OFEJBAN lu mel na yi euh, après ñu créer ANPEJ pour que ndaw yi ngeen mën leen jox ay xëy mën leen di financer ñuy euh, am xëy am seen entreprise bu bopp ñu dem ba ci biir ñu ne bon léegi fast track nañ dugal DER def fa 30 milliards dafa mel na que ni yéen ANPEJ da ngeen échoué si mission bi ñu leen joxoon ba tax ñu ñëw toftal leen tey DER jox ko ay moyens yoo xam ne joxuñu leen ko. oui. Euh, tout cas, c'est un plaisir pour moi de, répondre à votre invitation. Et si vous me permettez euh, de s'exprimer en français ou bien en wolof. Euh, euh, voilà donc parce que bëgg na tey ñi nekk si marché yeeg marchand ambulant yi ñuy déglu ci 88 point 4 xam nañu wax lan la. d'accord waaw kon ginnaaw ba ñu sant yàlla jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte ñëw. wuyu si la si émission les grandes heures ñu waxtaanee actualité fii si Sénégal waaye da nga ma posé question boo xam ne nii euh, balaa ñu si tontu euh, dafa laaj ñu wax mbirum statistique d'abord parce que mbirum emploi lépp si loolu lay door. xayma bi xayma bi ndaxte ñi nga xam ne ni tey dañu bëgg a xëy eh, ay étude def nañ ko ñu jàpp ni 31 pour cent ñi nga xam na ni tey dañu bëgg a xëy ay diplômé lañu boo jëlee téeméer fanweer ak benn am nañu seeni lijaas waaye ñu ngi wut xëy mais toujours ni nga xam ne ni dañuy wut xëy boo si jëlee téeméer quarante six pour cent ñoom it amuñu benn formation waaye état nag daf fi nekkal ñëpp ku jàng ak ku jàngul mais kon bu fekkee yowul si li nga wax nga ne ñun dañu échoué mën a déet échoué wuñu parce que man lépp lu may def également damay xool kii nga xam ne ni moo am politique d'emploi bi moom moo koy élaborer et ñun dañuy exécuter kon président Macky Sall laa bëgg a wax foofu daf fekk benn situation situation bu metti bi nga xam ne ni at bu ne c'est plus de 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché xaw ma 200 000 lu ñu koy waxee si wolof. ñaari téeméeri junni. ñaari téeméeri junni mais lii mën a am xëy 60 000 lay am maximum loolu mooy chaque année dañuy am 200 000 nouveaux demandeurs l'offre ne dépasse pas 60 000. du coup c'est plus de cent quarante mille jeunes qui sont là war a mën a am xëy mais amuñu xëy mais kon président Macky Sall euh, li mu def tey maanaam tey par rapport ak 31 euh, pour cent yi lay njëkkee mooy ñi nga xam ne ni euh, dañu am diplôme waaye mën mu ñu am xëy tubaab bi day wax ni y a un problème d'employabilité parce que suñu système éducatif moo mel noonu ñun ba ñuy jàng l'école yow ba ngay jàng moom président Macky Sall ba muy jàng euh, diplôme yi ñuy am plus on est diplômé moins on est qualifié maanaam diplôme yi ñuy am yi ñu doon am ay jamono méngewul ak li nga xam ne ni entreprise yi ñu moom lañu soxla kon da ngay jàng am sa diplôme waaye boo demee si entreprise bi li ñu lay bëgg a defloo jàngoo loolu donc président Macky Sall bu mu ñëwee. indi réforme ay réforme yi nga xam ne tey mënuñu wax lépp ci plateau bi tey mais di wax rek ay jéego yu nga xam ne ni président def na ko pour que képp koo xam ne da nga génn ci système éducatif bi nga am euh, euh, euh, nga am lu ñuy wax nga nekk en mesure nga am qualification bokk nga am qualification d'abord boo xoolee école primaire yi am na lu ñuy wax curricula hmm. approche par compétence ñun dañ doon jàng approche par le savoir connaissance et cetera c'était mais aujourd'hui boo demee ci école yi xale yi ñu ngi def le savoir faire l'approche par les compétence nga ñëw au niveau collège gis nañ ni président Macky Sall yokk na euh, le nombre de euh, lycées technique de bloc euh, scientifiques yooyu yëpp yokk nañ ko ba nga xam ne ni diplômé yi nga xam ne ni am nañu bac tey président Macky Sall li mu décidé mooy que 30 pour cent des diplômés bac sont orientés dans les universités techniques tey y a les e innovation bu am solo la bi nga xam ne ni président def na ko pour régler question emploi des jeunes et ISEC tey mooy lan da ngay dem si ay euh, région lu mel ni Kaolack ñëpp xam nañ ni Kaolack mbay bi la c'est c'est c'est l'agriculture mais Kaolack aussi mënoo ko wax te tuddoo Fatick tuddoo Kaffrine tudduloo Nioro c'est le bassin arachidier e am na yeneen ressource yi nga xam ne ñu ngi fa donc université bu Kaolack bi par exemple day ñëw former ces jeunes pour que ñu mën a euh, am qualification mën a valoriser les ressources yi nga xam ne ni ñooy jóge ci région bi tey jii boo xoolee Euh, Sénégal on parle de gaz on parle de pétrole te gis nañ président Macky Sall inauguré na école boo xam ne la ñuy former voilà pour ñu former leen ëllëg donc loolu la jàpp ni képp koo xam ne da nga génn si système bi d'ici les cinq ans que tu sois opéra opérationnel loolu am na solo la question maintenant euh, beneen bi également mooy les 46 pour cent mooy xale yoo xam ne ni amuñu jàng mais xale boo xam ne tamit amoo jàng état bi warul la sànni parce que état euh, vingt cinq constitution bi mooy état dafa war a gunge képp kuy ndaw te nga soxla xëy mais loolu aussi boo ko xoolee euh, président Macky Sall tey jii liggéey na si lu ñuy wax la promotion de l' auto emploi. mooy ngeen financer xale yi. ñu financer xale yi auto emploi également mooy lan mooy nañu fexe. ba xale yi am métier wut ay centre de formation boo xam ne ni c'est des activités génératrices de revenus xale bi buñ ko tàggatee ba mu am métier ñu financé ko te loolu tey jii am na structures yi am solo yu mel ni ANPEJ yu mel ni DER. DER moom def na am problème de recouvrement. remboursement yi mais yéen du côté de ANPEJ est-ce que yéen a ngi si loolu. oui xam nga tey euh, boo jëlee euh, lu mel ni ANPEJ déjà aussi il faut que nga wax lu waral ANPEJ parce que gisoon nañ ni y avait beaucoup euh, de structures qui avaient pratiquement la même cible mooy ndaw ñi lañ doon liggéeyal. ñu doon wax rek ci début FNPJ. FNPJ euh, ANAMA bi nga xam ne maa ko jiite woon. Mm-hmm. ak euh, ANEJ mais yooyu yëpp ñu tënk ko def ko muy ANPEJ mais ANPEJ tey wax dëgg yàlla 2014 ak tey ay jéego def nañ ko mais euh, ba ngay waxee par exemple question de euh, ba nga waxee échec non y a pas d'échec parce que question emploi problème insertion des jeunes dans le marché de l'emploi toujours dafay exister. non mënoon naa simplifier question est-ce que parce que président Macky dafa kontaanul si li ngeen liggéey moo tax mu indi DER. pour oui, loolu ñun duñ si mën a duñ si mën a. duñ si mën a tontu mais euh, euh, askanu Sénégal tey ñoom ñooy observer ñoom ñooy xool est-ce que ñoom li ñu doon xaar si boobulee agence gis nañ ko wala gisuñu ko mais président bi nga xam ne tey il est le mieux informé peut-être ak information yi muy jot jàpp na ni war na mën a euh, créer beneen structure bu mel ni ay DER pour gën a. Euh, gunge ndaw ñi parce que man loolu laa ko jàppee dama jàpp ni euh, président Macky boo xoolee si programme am la priorité des priorités pour man c'est la jeunesse. waaw ah, mais ci jeunesse boobu. maintenant ci biir jeunesse boobu bu fekkee ni euh, au niveau de l'ANPEJ am na un dispositif de formation d'encadrement d'accompagnement des jeunes lu wàllu financement mais président Macky Sall jàpp ni loolu doyul loolu doyul. parce que la question de l'emploi la question des jeunes fi mu ko teg euh, foofu laa la doon wax ni mu foofu dafa kawe mu jàpp ni war na indiwaat leneen yokkaat ko mu gën a dooleel. ANPEJ mais mais ñàkk a la wala doyu ko c'est-à-dire résultat bi nga xamante ni jot nañ ko am parce que euh, gis nañ fi euh, ñi nga xamante ni comme yaa ngi wax tout à l'heure que ni population du Sénégal ñoom mën nañ répondre si question bi mooy que ni est-ce que ANPEJ jot na def preuve parce que bu ñu xoolee ANPEJ euh, lu ñu njëkk a wax mooy que ni euh, am na yu bëri lu ñu fay am comme info comme quoi que euh, népotisme bi dafa bëri corruption bi fa bëri donc bu ñu ñëwee tey quelques années après le président Macky Sall revient pour installer la DER donc là day mel ni luy confirmer li nga xamante ni jugement yu ñu doon porté si si ANPEJ am na sax comme ça revient encore cette ce problème de Euh, de de genre structuration euh, déguisée bu ñuy wax euh, que ni genre c'est c'est une façon peut-être de ajuster structurellement d'une manière structurelle li nga xamante ni moom mooy secteur boobu noonu peut-être pour jéem a xoolaat croissance économique bi nu mu koy équilibré et tout donc moi je me dis que même si vous ne voulez pas le dire euh, c'est quand même euh, on peut dire que ANPEJ a vraiment à sa mission. Oui, mais je ne pense pas parce que ñaari entité yu xaw a niroo quand même dire que aujourd'hui euh, wax ni ANPEJ échoué na tey di féliciter di encourager le directeur général sortant mënuñu wax ni échoué na tey mu am promotion au niveau de l'IPRES non les promotions là. non non parce que loolu aussi parce que moi je pense que wax ni ANPEJ échoué na là aussi bon wax bu c'est trop léger quoi. Hmm. mais ce qui est sûr mooy yéen seen critère yi nga ni noté. ou bien ni boo leen observé information yi ngeen jot bon moi je dis que franchement moom laa wax léegi euh, benn euh, question wu emploi du président Macky Sall mooy ñëw indi ay solutions définitives parce que c'est une problématique qui existe aujourd'hui qui existait existe mais lii am solo mooy yan jéego la ñu def tey jii pour rassurer cette jeunesse là te loolu président Macky Sall mi ngi ci loolu laa wax ni ANPEJ mi ngi fii def nañu liggéey bu am solo waaye nag président jàpp ni war nañu yokkat parce que la question de l'emploi ndaw ñi daf ko ñoo trop moo tax mu indiwaat DER pour ñu gën a renforcer. xam nga da nga y' a deux cent mille euh, euh, personnes qui euh, actuellement des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. soixante mille yi ñoom pratiquement niche bu ñu leen di dugal am na. Mm-hmm. mu des cent quarante mille dégg naa léegi-léegi ngay wax quarante pour cent. si ñiy wut liggéey amuñu diplôme man ñi ma si gën xalaat tey di les marchands ambulants nga amee woon fi benn moment anama euh, mais tey marchand ambulant yooyu c'est comme si dañ leen bàyyi ñoom rek kenn ku si nekk lijjanti sa bopp euh, boo amee foo dugg baax na boo mënee am foo teg sa loxo baax na chaque jour bon na nga góorgóorlu rek ba am fenn fa mel na que ni jëluñu leen en fait en en main et pourtant il y avait une politique une vision boo xam ni commencé woon nañ ko appliquer bi nga nekkee DG ANAMA après euh, Fourouz quoi. waaw mais cest à loolu aussi ni nga ko état warul exclure kenn tu vois euh, donc boo waxee d'après ni nga waxee c'est comme si yaa dafa am benn discrimination dans la politique bi nga xam ne développement bi nga xam ne mettre nañ ko en place ba marginaliser aujourd'hui les marchands ambulants et moi je dis que marchands ambulants aujourd'hui euh, ay euh, régulateurs sociaux et pourquoi je le dis parce que Sénégal dafa am euh, la crise de l'emploi am na crise de l'emploi euh, boo xoolee les marchands ambulants quatre-vingt-onze pour cent des marchands ambulants ay ndaw lañ ce sont des jeunes mais ces jeunes là xaaruñu état jox leen liggéey mais ñoom ñooy débrouiller seen bopp ñoom ñooy débrouiller seen bopp donc ce sont ay entrepreneurs lañ mais problème bi mooy mooy man la manière dont ils exercent leurs activités qui pose problème marchand ambulant fu ñu ko waxee tey parce que euh, le sens étymologique marchand ambulant mooy ki nga xam ne ni day sillonner les rues les artères dem rencontrer la clientèle pour mun a écouler ses produits mais qu'est-ce qu'on a on voit aujourd'hui tablier yi ñoo fees mbedd bi tablier borom table yooyu te ñooñu on les considère comme des marchands ambulants oui parce que tout simplement bu fekkee benn da ngaa teg sa table tey fii avenue Ponty di jaay gis ni njaay mi doxul da ngay jël sa table dem toog e, e, Eliman Elimanel Fall tu vois donc li ngay bouger noonu on te considère parce que les mots également dañuy évoluer dans le temps tu vois on n'est pas en grammaire mais bu fekkee par exemple tu dis en grammaire j'ai il est beau adjectif qualificatif la mais quand tu dis il a beau manger ça devient un adverbe mm-hmm. donc il y a l'évolution des mots dans le temps kon du wax ne tey marchand ambulant il y a cette évolution là tey dañuy jël les marchands ambulants boole si les tabliers te benn moo tax quand tu poses la question des marchands ambulants ñun Sénégal kat war nañu mën a taxaw ñu mener la réflexion à ce niveau ñu xool parce que c'est devenu une priorité nationale parce que euh, les marchands ambulants tabliers yi 74 pour cent ay tabliers lañu te tabliers yooyu ñooy occuper la voie publique te bu ñu occuper la voie publique piétons yi ak oto yi yëpp ci tali bi la ñuy dox lan mooy xew c'est l'embouteillage te ñëpp xam nañu embouteillage bu amee day ralentir l'économie de ce pays la les activités day yéex. on doit suivre euh, la revue de la presse mais puisque tudd nga ko est-ce à dire que donc euh, tey les opérations de désencombrement yi am. dama koy rafetlu yéen ministre Abdou Abdou Karim Fofana def. si si si euh, dama koy rafetlu. vous estimez que c'est bien. oui xalifa commencé woon nag ngeen yóbbu ko fële d'accompagnement non non non xam nga euh, ñun ba ñuy nekk euh, anama wax dëgg yàlla euh, moi je disais. vous faites du xalifa sans xalifa man maa ko doon théoriser ma ne je suis le premier ambulant de ce pays maanaam bu fekkee ni tey da nga bëgg y a ce qu'on appelle si tubaab légitimité sociale maanaam mooy lan xam nga nit ki soo ko bàyyee si mbedd mu toog fa di liggéey di jaay bés bu ne yow en tant que autorité municipale nga ñëw mu fay tax bu yàggee moomeel lay doon. bien yow boo jógee da ngay ne maa ngi dem place diw. donc kooku bu fekkee dangaa jóg pour dindi ko fa. alors que euh, euh, indi woo euh, beneen proposition mais tu vas créer un soulèvement populaire. bien sûr te Sénégal tey foofu la ñu toll. je pense que la question des marchands ambulants il faut que ñu dem si avec. euh, diplomatie. Mmh. c'est-à-dire que je ne dis pas déguerpir euh, euh, euh, li may wax mooy négocier discuter ba nga xam ne ni ñoom seen bopp ñooy participer ci seen déguerpissement ñoom ñooy déguerpir seen bopp mais l'État war na mën a tey jii réaliser des emplacements commerciaux pour recaser le maximum de marchands ambulants mais suñuy amoon na temps on avait travaillé avec la la collectivité locale de Dakar ba nga xam ne ni leer marchands ambulants amoon nañu ay ay carte numéro d'identification permanente c'est-à-dire que bu ñu la joxee carte bi ñun xam nañ ni yow fan nga doon jaayee ak fan euh, euh, euh, waaye fan nga doon jaayee bu boobaa bu ñu la déguerpiré boo indee sa nijaay wala nga indi sa doom wala sa kër bu toogee fa bu ñu ko fekkee xam na ni moo tooy donc on avait réussi ça Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut le dire et reconnaître que les marchands ambulants sont restés en rade. En tout cas, voilà. et, et, comme, comme vous venez de le dire, il faut le dire parce qu'en fait, euh, parfois, dañuy jël euh, euh, responsabilité bi yëpp ñu imputer ko marchands ambulants yi alors que les maires les mairies ñoom am nañ ci part de responsabilité comme vous venez de le dire dañuy jël taxe yoo xamante ni dañu leen koy teg donc boo xamee yow yaa ngi fay donc da ngay jàpp ne euh, je suis dans mes droits lu la neex def donc je pense que affaire bi chaîne la donc pourquoi pas essayer même d'impliquer ces maires là ci biir euh, euh, parce que c'est bien de déguerpir les gens parce que occupation ah, anarchique bi xam nga loolu ñun on avait en place un cadre de cadre de concertation bi nga xam ne c'est tous les acteurs qu'on pratique ñoo fay nekk il y avait l'État représenté par euh, l'agence l'ANPEJ euh, l'ANAMA les collectivités locales Euh, y compris même euh, les marchands ambulants ba nga xam ne on avait une stratégie nationale d'appui aux marchands ambulants eh, oui, mmh. mais tey jii wax dëgg yàlla bu doon sama sago tey vision président Macky par rapport à la prise en charge du secteur informel dinañ ci jàpp pousse bu baax a baax a baax. parce que et surtout que ça ça devrait vous permettre euh, d'avoir beaucoup plus de recettes. Oui, parce qu'ils que... échappent à la comptabilité nationale. Euh, te loolu par rapport ak mouvement bi nga yor noonu muy mouvement C2C euh, croissance à deux chiffres xëy na di dina permettre Sénégal am am am croissance boobu. oui parce que euh, benn li am solo mooy gis nga le secteur informel. Mm-hmm. le tissu économique de notre pays 97 pour cent ce des PME et PME yooyu sont dans le secteur informel mais dans le secteur informel également l'activité la plus dominante est celle du commerce qui occupe 42 pour cent kon ça veut dire quoi mënuñu euh, def le développement euh, Sénégal bu fekkee euh, euh secteur informel bi euh, indiwuñu ko moo tax tey jii moi propose même pourquoi pas aller vers la création d'une agence nationale d'appui au secteur informel non seulement agence boobu dina jouer les rôles anciennement dévolus à l'ANAMA mais également dina liggéey pour euh, formaliser les activités des marchands ambulants afin que bu ñu échapper à la comptabilité nationale et là lu am solo la et je pense que ñun en tant que de techniciens de l'administration en tant que des politiques lu ñu mën a def mooy accompagner le président Macky Sall pour que sa vision mu gën ko mën a matérialiser loolu tax effectivement boo waxee ni Salou Keita président du mouvement CDC CDC pour sénégalais yi ko xamul c'est euh, croissance à deux chiffres pour l'émergence parce que qu'est-ce que tu vois chaque fois c'est des mouvements ànd dooleel Macky mouvement taxawu nag et cetera et cetera moi je le débat aujourd'hui Sénégal débat bi ça doit être économique débat au Sénégal ça doit être social parce que c'est ça que les Sénégalais ont besoin on n'a pas besoin wàccal ma yéeg non comme et ça surtout suivre le wàccal, suivi ouais, le ah, que tey jii euh, mouvement bi muy wax ni benn effectivement je suis le président de, de CDC ñun dañu wax ni que il faut aujourd'hui qu'on se démarque de certaines pratiques qui transforment le débat politique en querelle de positionnement parce que ça n'intéresse pas les Sénégalais Sénégalais tey xam nga lu leen intéressé naka la ñu mën a def ba ndaw ñi bu ñu jàngee ñu liggéey naka lañu ñu mën a def ku feebar nga dem nga faju naka la ñu mën a def bu tawee bu mu taa mais pour loolu yëpp il faut que nos champion nationaux wax nga li 97 pour cent des entreprises yooyu secteur informel bi la euh, ma ma si nuyu di xalaat euh, Babacar Diagne euh, président convention des entreprises du du Sénégal mais gis nañ ni que ni ñooñu ces champions nationau kenn accompagné wu leen. ba tax sax ñoom ñu dem créer le club des investisseurs bëgg am si les grands projets. non ñu ngi leen euh, vous savez euh, là aussi dafa dafa dafa laaj ñu leeral kooku parce que Sénégal euh, dafa nekk réew moo xam ne ñii xam du ñu wax parce que ragal nañu bu ñu waxee ñu saagale ñii xamul war a mën a toog seen kër di seetaan tey ñoom la ñuy seetaan. xam nga tey bu fekkee le Sénégal a une ambition wax dëgg yàlla il faut le dire avec le président Macky Sall quand ay jéego am na nañu moo tax maa ngi rafetlu la dernière sortie du président Macky Sall xam nga tey en tant que CDC président euh, du mouvement CDC croissance à deux chiffres il faut que ñu def benn étude comparative étude comparative boobu mooy lan xam nga président Macky ba muy ñëw au pouvoir en 2012 suñu taux de croissance c'était 1,7 pour cent mais tey porté nañ ko à plus de 6 pour cent cela veut dire quoi que am na ay jéego yu am dans beaucoup de domaines damay jël ñaari domaine benn bi les infrastructures mënoo def développement sans infrastructure c'est pas possible te boo xoolee tey li fi Abdoulaye Wade def mu baax bu tolloon juróom président Macky Sall yóbbu na ko triplé na ko en matière d'infrastructure. Mais parfois avec des des des des inconvénients monstres. je pense aux populations de de de aux populations de de Rufisque tey pratiquement dañu diviser zone yooyu en deux. C'est normal. Avec avec avec CTR, c'est c'est une catastrophe. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut convoquer la citoyenneté. Quand tu aspires au développement, am na loo xam ne mënta ñàkk. Il faut réformer. Gars yi nañu ànd ak président Macky par rapport à cette vision-là pour qu'on fasse des réformes. Bu fekkee aujourd'hui on veut que le Sénégal soit euh, développé li nga xam ne yeneen réew ñu ngi koy dund mu neex ñun tam ñu bëgg loolu mais je prends l'exemple du train express régional tey train express régional on est en train de former des jeunes qui habitent dans toutes les zones traversées par le train express régional pour les faire former dans les métiers du rail ça c'est des c'est des emplois ça c'est de l'insertion mais il y a des effets euh, collatéraux tey jii boo demee euh, Tëngéej nee ñu inondation yi nga xam ne tey am na c'est dû au euh, ak euh, euh, terre bi. donc par exemple bu ñu demee fu mel na Anne Marinas nga xam ni léegi benn bunt rek la am. waaw mais loolu c'est pas grave. ay jamono la rek c'est-à-dire que te moo tax mu ne on il faut convoquer la citoyenneté Anne Marina fekkee bonn bunt la yàggoon na am fukki bunt mais dafa am travaux bu fi nekk pour la sécurité des populations mu am benn bunt nañ ko nangu en attendant que projet bi pare. bu paree ñëpp si ñëw si njëriñu bu boobaa la bunt yi dina bari inondation dootul amati Sénégal jëm kanam. alors euh, euh juste euh, puisque léegi léegi ñu doon wax euh, les les grands projets euh, mais euh, il se trouve que Saliou ces grands projets là dafa mel ne président Macky Sall dafa am préférence pour les entreprises étrangères sénégalais yi soit ay ouvrier lañ fay doon mais en tout cas si fromage boobu moom. Euh, la portion des Sénégalais est incongrue tey boo amee sa entreprise bu ñu la si jox ndegam sax di nga si mën jot dafay nekk lu lu lu tuuti trop ba tax croissance bi ngay wax à à pour cent. c' est difficile pour que Sénégalais bi mën ko ressentir dans son vécu quotidien waaw xam nga euh, am na réew yoo xam ne tey am nañu croissance égale à deux chiffres et la pauvreté mi ngi foofu di exploser mais si on vient pour le cas du Sénégal euh, moi je dis. Euh, croissance inclusive et participative c'est-à-dire qu'aujourd'hui participative ñun ñëpp war nañ dugal suñu loxo si construction sur la réalisation quand même de cette croissance à deux chiffres tu vois effectivement l'opposition sénégalaise ba nuy ñuy déglu dañuy wax ni woy président Macky Sall lépp daf koy jël jox ko étranger yi jox ko les français je suis pas d'accord parce que ay compétition la tey sénégalais yi ñu ngi gagner des marchés dans la sous-région mais duñ ko wax c'est parce que dañu dem compétir tey y a des marchés yu nga xam ne ni des grands projets mais suñuy euh, entreprise nationales yi elles ne sont pas aussi outillées au plan financier d'abord amuñu les moyens financiers techniques pour répondre quand même à mais ces... monsieur est-ce que vraiment on peut se permettre de tout mettre en compétition quand même. Euh, parce que y a des secteurs yoo xam ne les mettre en compétition. c'est vraiment mettre en rade euh, sincèrement préférence nationale. non la préférence nationale mi ngi am xam nga bu leen fàtte ni aujourd'hui euh, y a le nouveau code des marchés publics et nouveau code des marchés publics il y la loi d'orientation également pour la promotion et le développement quand même la promotion des PME yooyu boo xoolee ay dispositions yoo xam ne l'État du Sénégal def na ko. pour faciliter l'accès des PME euh, sénégalaises au marché public mais au plan pratique foofu lay waxee y a tey ñu ngi sant yàlla toujours dans le dispositif nous avons euh, l'agence de régulation des marchés publics l'ARMP mmh. bi nga xam ne tey mi ngi outiller nos entreprises di leen former parce qu'il y a beaucoup d'entreprises il y pour cent des entreprises qui ignorent même l'existence des marchés publics tu donc je pense que euh, lu mel ni ARMP ñu ngi fii tey même les vos collègues journalistes ont été formés par rapport à au marché public pour que ñu xam cette cette problématique la parce que euh, c'est petit à petit bu ñu yàggee yaakaar naa ni euh, wax nga ko tey avec euh, Abdourahmane Diouf ñoom seen kuréel boobu tey jii et c'est c'est c'est c'est cadre cadre bu am solo la yoo xam ne dina permettre ñoom quand ñu regrouper wu regroupé wu pour am une certaine solidité financière mais ak accompagnement euh, état bi au plan technique yaakaar naa ni dinañu capable quand même euh, un jour répondre quand même euh, gagner à des marchés maintenant yeneen jeunes yi ngay wax ni tey parce que même les entreprises yi nga xam ne tey ñoo gagné les grands travaux mais ils obligatoirement elles font de la sous-traitance il y a des activités yi nga xam ne ni c'est des entreprises nationales ñoo koy jël mais loolu dans le long terme dans le court euh, moyen terme am na solo parce que y a transfert de technologie transfert de compétences ñoom bu ñu demee mais nous on assure le reste c'est comme ça. alors du côté de la régie euh, on doit pouvoir regarder euh, la revue de presse ou direct région Thiès euh, tout dépend de vous avant le mot de la fin rapidement. nous entamons cette revue des titres de lundi. 7 octobre 2019 par le quotidien Sud le Quotidien qui revient sur l'affaire des 94 euh, milliards. Ousmane Sonko son inéligibilité. Il y a un complot pour m'empêcher d'aller aux prochaines élections. Ils vont en garde le régime. Toujours sur cette même lancée, l'observateur euh, revient sur la politique avec Ousmane Sonko qui, qui crie au complot. Ils veulent m'accuser, m'arrêter et m'empêcher de me présenter à la présidentielle de Toujours sur la une de l'Observateur, la succession de Macky Sall, l'après euh, qui fait peur, c'est à retrouver sur les pages 6 et 7. Vox Populi, Ousmane Sonko accuse le pouvoir, leur volonté est de détruire mon casier judiciaire. Ils veulent m'empêcher de participer à des élections. Que tout le monde soit prêt, le combat vient de commencer. PASTEF est le parti qui a subi le plus d'attaques. 24 heures, pouvoir et opposition, Macky fait son intifada. C'est normal qu'ils parlent, qu'ils critiquent, qu'ils inventent. Ils veulent discréditer notre action pour que les populations de nous. Wolof Ndiaye nee na fula mooy jaay Dakar Fatou Sow Sarr craint pour Ousmane Sonko. Un sujet à retrouver sur la page 7 de votre quotidien. on reste toujours avec le président Macky Sall qui nargue l'opposition. Je ne boxe pas dans la même catégorie que les euh, autres. Macky Sall à ses partisans, il faut envahir les médias, les plateaux de discussion, les réseaux sociaux. Mohamed Boun Abdallah John qui revient évoque sa maladie. Toujours avec le quotidien LAS, Kibar à sa une, une photo de Khalifa Sall euh, tout sourire, l'ex-maire de Dakar dans les foyers religieux. Tiawan adupe Khalifa Sall, le pays a besoin de toi, vous avez choisi le chemin de la vérité et de la droiture. Libération revient sur, sur le scandale autour de la liquidation judiciaire de la société Kafal. Libération nous en livre un dossier exclusif, 1,117 milliard de francs CFA volés. Le parquet ouvre une information judiciaire pour escroquerie et banqueroute frauduleuse. La notaire Maître Binta Thiam et le conservateur de Pékin, Makot de Salle, interrogés à la section de recherche les péripéties les péripéties d'une rocambolesque affaire au cours de laquelle on retrouve l'homme d'affaires Ibeka Enquête. Fin de mandat des élus locaux, euh, au sommet de euh, l'État, arrivé à expiration depuis le 1er juillet 2019, le mandat des élus locaux n'a toujours pas été prorogé. Suspendu au dialogue politique en cours, la date des prochaines municipales est jusqu'ici inconnue. Le président Macky Sall en conclave ce mardi avec les élus locaux pour discuter de la question. Nous euh, retrouvons nos confrères de l'Observateur avec Malamine Fall, activiste, qui nous livre la vérité sur cette histoire de soutien de la Première Dame à Karim Kouroumakh, le silence de la famille et les 12 millions francs CFA de la cagnotte. C'est à retrouver à la page 4 de votre quotidien. Réwmi euh, quotidien revient sur la mort des Diambars en Centrafrique, la double perte de Mankeur Ndiaye. Le Soleil Barassa, une enseignant, une profession qui ne fait plus rêver, c'est à retrouver dans les pages 9 et 10 du quotidien national. On termine avec le sport, avec record. Capitaine Kouyaté donne le ton. On peut titiller le Brésil. Soutient le capitaine Kouyaté, 18 Lyon à l'appel d'Alul Sissé. Gallo stade de Roissy à 10h. Blessé Mendy et Nyang, attendu ce lundi. Stade, le quotidien du sport, avant Brésil-Sénégal du 10 octobre, Sadio, Ghana, Crépin, tout feu, tout flamme dans leurs championnats respectifs. On termine avec euh, Sunu lomb Yekini Junior qui défie euh, sa pièce. S'il est prêt, je suis partant, euh, soutient-il. Notre combat est plébiscité et réclamé. Je ne refuserai pas. Site et Guigui. C'était tout pour cette revue des titres. Rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Rendez-vous pour vous la semaine prochaine, mais bon, nous on est là demain. Euh, Awa Mamadou euh, notre invité c'est bien salu Keita, secrétaire général de l'ANPEJ. Euh, il nous reste quelques petites minutes. Euh, Salou Keita gis nañu léegi léegi euh, président Macky Sall mu ne il ne boxe pas dans la même catégorie que les autres euh, Khalifa Sall dem Tivaouane ñu ni que yoon bi nga jël yoonu dëgg jot nga liggéey ak moom ginnaaw bi mu génnee kaso est-ce que du yëngal tuuti la mouvance présidentielle. parce que ñu bari dañ jàpp ni retrouvailles yooyu baaxul si yéen ñi nekk si mouvance présidentielle bi parce que dañoo nar a redistribuer les cartes. oui mais forcément euh, cette fois-ci c'est le politique qui va parler mais li may wax mooy euh, damay rejoindre encore le chef de l'État le président Macky Sall euh, il ne boxe pas dans la même catégorie que ces gens. il doit même pas boxer ah oui parce que xam nga lu tax borom càq ak ki amul càq du benn bu fekkee dañ la dénk ndombal liggéeyal te bul gestu te président Macky Sall si loolu la nekk l'opposition est dans son rôle il faut que ñu wax bu ñu waxul ñu abal ñu il faut que opposition bi wax mais ñun il faut que ñu liggéey il faut que ñu liggéey ñu satisfaire les populations te loolu moo am solo comme président Macky mu ngi ci li ñu digal mooy li may def tey dem si plateau télé yi wax ak askan bi ñu dégg parce que duñu wax loo xam ne amut dañuy wax loo xam ne ni weddi gis bokk ci mais ku ñuy wax crise mais amul réew bu amul crise amul tey la crise elle est mondiale ku taxaw ne pays dëkk bi mënul taw Macky Sall moo tax dëkk bi tawul mais ça vraiment way wax yoo xam ne teguñu ko feet mais bu tawee tamit ñu ne Macky Sall moo tax dëkk bi di inondé mais tey yàlla xam na ni tey lii Macky Sall def président Macky Sall def en terme d' investissement par rapport ak inondation yi gis nañ ci résultat mais travaux terre bu amee ñu war a am ay Euh, ay effet à côté mais dañ ko nangu moo tax sànq moo ne il faut que ñu convoquer la citoyenneté donc je pense que tey. opposition mais dafa mel ni yéen ñi ànd ak moom dangeen ngeen ñamewul trop wala boog moom wóoluwu leen bàyyi leen ak ñi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko Khalifa Sall Karim Wade dafa mel ne ñett ñooñu bu ñu leen bàyyee ak yéen a APR ñu lekk leen si benn fan. non c'est pas une question c'est-à-dire que loolu peut-être yéen seen gis-gis la mais ñu ñun toll guñu sax mais dañu dama jàpp ni euh, waxtu yi ñu toll ñun mooy waxtu liggéey. ñoom ñoo toll si waxtu politique bu politique jotee ñun dinañ leen fekk si terrain politique bi jàmbaarloo ak ñoom mais instant yi kat waxtu liggéey la. nañu liggéey ñu satisfaire les. et pourtant ce sont des sujets quand même d'actualité et des sujets très intéressants que ces opposants là que dont tu parles euh, vraiment ñoom yooyu la ñuy servir tout le temps donc. Euh, faut pas quand même tout le temps être. Euh, Euh, faire table rase wala jéem euh, instant. il faut jamais estimer mhm. parce que tey jii bu fekkee da nga nekk au pouvoir jàppal ni yow démb da nga nekkoon dans l'opposition hmm. nga dem élection gagné kii nekk pouvoir loolu mën na am parce que les sénégalais sont extrêmement intelligents les sénégalais sont très intelligents mais lii am solo mooy sénégalais xam nañu intérêt réew mi fan la nekk te tey jii. Hmm. intérêt réew mi ci Macky Sall la président Macky Sall. Salou Keita, spécialiste euh, en microfinance, passation des euh, marchés, secrétaire général à ANPEJ, ancien directeur général de l'ANAMA moo doon suñu gan ñu koy remercier Salou si disponibilité bi tout cas ma xamoon ni moom dégg na bambara émission bi bambara lañ koy defee je salue tous mes amis du Mali euh, encore une fois donc surtout la délégation qui est venue du Mali et de la sous-région pour un séminaire euh, donc ici à Dakar sur le terrorisme les mécanismes pour contenir le terrorisme dans la sous-région donc tous ces collègues de la CEDEAO ñu ngi leen di euh, dalal jàmm euh, ici au Sénégal Astou nous restons ensemble merci à toute l'équipe technique si vous êtes à table bon appétit on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre euh, magazine ce sera aux environs de 13 et minutes en attendant place à Sokhna Nabou pour le journal